waaw mu jox boppam sëñ Modou nga jox sa bopp sëñ Modou waaw léegi nag nan bi na ngaj rek ñu addi addi yi fiy jox rek jërë fall jëm fël ay mo leen rek fël sa jëm bee soo ko téye daal mu lu bëgg yàlla ko am bakkat ñu ci dimbali boo ko téye mu rek liñ bëgg am waaw daal ñu bëgg yàlla ko am ah dóor waaw loolu la ngeen see yow seen. ah su su xam nga ay at ay at ay gone damay gone ci. xam nga juróom ñaar fukk juróom waaye teewloo damay gone. dégg nga ah. nga xam nga xam nga. waaw man daal. ah si bi laa bind. ñun bis bi laa bind. xool mu am jëm si. bi mille cent cinquante lan la doon baax. mooy si ma ma ma dégg ma dégg ma dégg ma dégg ci miim nag ba xam. bay si ndax ñun kat daal loolu baax ba muy daal mu si quoi. te baax si miim la woon. bu dee miim rek ma xam ne génn fa. waaye mooy baax. soo ma soo ñëpp ñu baax ñu miim ñu si ñu si mu ne miim la. mooy ko baax na kon gaa miim la wax. te ñun kat daal la miim la waxoon te boobu mu si quoi mooy gaa ci ci si quoi. naa xam dégg rek. loolu la moo waxoon nag baax. ba ci masha Allah ba ci laaw kon mu doon baax yi daan waaye waaye waaye mu wax ba mu naan dem rek su ñëw ak yow xam fekk na maa ko la xaar waaye damaa ñëw si mu xaar si mu xaar ba nga ñëw si naan vậy vậy vậy như chỗ nào nhiều nhiều mà nhiều nhiều mà vậy thì đó vậy chỗ là bậc đội bậc đội mỹ mua mà chứ mới là bạn ấy mua nẻ luôn này nên nên nhiều thành ra nó dễ đấy tôi sẽ làm thành ra nhiều không mua cái nẻ là một gì bộ mà như vậy luôn luôn là mua nẻ nhiều kiểu còn cái nó bay lại bên nẻ sëriñ Samba si ay yu lay def ñu nii moom nooy xool nooy def si kii bi waaye yow doo doon dara si kii waaye bien bien ngay lépp la daa doon dara si kii la si génne di lépp la waaw kon nag noonu lay santal ñu yëpp ñaan suñu borom li sa bëgg daal yaa ngi xam ne li bëgg daal yaa ngi ko mbay mu daal waaw ñu baax na sëñ bi xel ba ci kafe gi tuuti waaw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 Darou Bayré Fall TV, la première chaîne qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.